ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه كلهم وسلم تسليم مبكي جلتي مبكي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غناو بنو سنتي يال سبحانه وتعالى دي نيان يال يال يال سخال تي ديكو سنت gannaaw bi mu saxalee ci sant gi ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla nangul sunu cant jëmale ci moom te dara du ko rax lu dul jaamu yàlla ñu ngi julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa moom mi nga xamante ni moo waral jotaay bi moom mi nga xamante ni jamonoy tey jii foo romb waxuma la Sénégal waxuma la Afrique mais dans le monde entier ñëpp a ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lan dañoo dëkkmal euh, juddoom tombeek juddoom waaye tombeek juru mi génn àdduna fa tabaarakallaahu euh, ñu nekk na ci période boo xamante ni forom yaa ngi dégg nit ñi ngi burdu tey boo demee ci réewu naar yi waykat yi ñu ngi woy burdu àdduna bi foo dem ñu ngi woy burdu jamono ji foo dem ñu ngay jàng burdu mbokk yi tey suñu waxtaan ci ñetti point lañ koy tënk bi ci njëkk mooy kan moo bind burdu Mouhamed Bousiri mooy kan ñaareel bi mooy baatu burdu baatu burdu fan la jóge ñetteel bi mooy lan moo tax nag waa senegaal rawatina Cheikh Sidil Hadji Malick jël burdu instauré ko ci première guddi bi nga xamante ni tombe naak rabiul awal di tombe juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa kon premier point bi mooy kan mooy Mouhamad Busiri yu moom moo bind burdu mbokk yi Mouhamad Busiri naar la woon ñu tuddee ko yont yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam Mouhamad Busiri yu yàlla mayoon ko xam-xam éloquence ak fasaaxa Mouhamad Busiri yu demoon na ba foofu ma saan def discours mbooloo bu mënti waxal ak lu mu metti metti bu Mouhamad Busiri waxee rek mbooloo ma day sedd dañuy dégg la mu wax mu jigi buur bi jamono ja dem ba jël ko def ko porte parole palais ba ba pare mu yor lépp luy communication dëkk ba bopp soulèvement bu naroon am wala problème am wala jiixi jaaxa am wala buur bi bëgg jàllale message il suffit que Mohamed Boussouri def benn discours rek fa tabaarakallaahu dëkk ba yëpp ànd ak moom ndax façon ba mu koy waxee maanaam ci gàttal daal bu ma la koy misaalal Mohamed Boussouri ni mu meloon ci jamono mooy comme ni Alaaji Abdou meloon Sénégal nga xamante ne bu coow masaan am assemblée nationale nga digg baatu Alaaji Abdou jóg rek ñëpp bàyyi lañ daan def nga xam ni bu étudiants yi doon doon doon doon grève di bëgg reyante ak ñi nga xamante ni ñooy homme de tenue yi Alaaji Abdou woo leen wax ak ñoom étudiants yi bàyyi lépp ci suuf gis nga gis nga ñeewante ak nangu déglu kaddu Alaaji Abdoul Aziz baax yàlla yokk leeram ci nit ñi noonu la Muhammad Busri yu meloon ci jamono ji waaye nag Mouhamad Busri dafa am sëriñam boo xamante ni ndeysaan moo ko jàngal bari na li lu matali ci àlluwam yëpp sëriñ boobu moo ko defal sëriñ bi daf ko daan wax naan ni ko Mouhamad Busri su ko mësaan gane si ni ah yaa ngi tagg buur yi rek waaye Mouhamad Busri bul fàtte ni kañ la tuddee kookoo jara tagg kañ la tuddee jara kañ muy kan muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Mouhamad Busri xanaa xamoo da nga mën rek amal leen njariñ moo tax ñu téye la waaye bis boo xëyoon te amaloo leen njariñ Mouhamed bousri dañ lay wan ginnaaw loolu la olof naan buur du mbokk yàllay dogal Mouhamed bousri di dem ñi koy may terang, ba bis jot nag Mouhamed bousri am feebar ndeysaan feebar bi tàmbalee nag ci lu ñu wax ci jamonoy tey maanaam AVC bousri gis benn parti yaram bi commencé commencé di bañ mënatul def effort yam daan def yamu ca feebar bi di gën a di dolleeku jékki-jékki ay picc di génn ci yaram bi ay taab di toj ci yaram bi mujj gi ci gàttal rek buur ba ba mu gisee ni Mouhamed yi commencé na soppeeku te amalatu ko njariñ buur bi nañ ko génne ci biir pale bi dañ ko génnee ci pale bi ñu utal ko euh, benn dëkkuwaay boo xamante ni dafay nekk provisoirement waaye ba ñu demee ba feebar bi di gën a di di di law waa dëkk ba nag def délégation dem ca buur ba bëgg Mouhamed Bassirou yi kiti dëkk ba ndax mën na faa indi feebar wala pest wala loo xamante ni se c'est contagieux une di contagieuse su ko defee mu mën a lor waa dëkk ba yëpp mujj gi xoolal Mouhamed Bassirou yi fañ ko tegoon ak nañ ko wàccee tey kon mu leer la ni tey lépp lu nit di def te te weeru woo ci yàlla wala woo ci yonent yàlla Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam wala ñi nga xamante ni ñoo fi taxawa yonent bi kon yàq nga sa wéeruwaay keroog ndeysaan Mouhamed Bassirou benn taalibi rek moo ko toppoon ci ñi mu daan àndal ñëpp soxna ya dem nañu am di jàmb ya xarit ya ña mbokkam ya ñëpp ko abandonné Mohamad Busiri nak ànd ak xaritam boobu ndeysaan ña dem dëkk ci àll ba ñoom ñaar dong feebar bee ngay yokk Mohamad Busiri nak xelam yedd ko bés ci li ko sëriñam ba doon wax naan kan Mohamad Busiri yu moytul buur yi duñu mbokk da leen amal njariñ moo ñu waaye bul fàtte ni a ah, am na koo xamante ni kookoo jara tàgg de ndax kooku rek la yàlla ni inna allaha wa malaikatahu yu ala annabi yaa ayuha allazina amanu sallu alayhi kon fa law nga gis ni kon xelam mi ngi commencé dem ci li ko sëriñ ba doon wax ca guddi ga nag ba mu jullee géewe ba pare mu daldi woo taalibe bi ni ko a ah, jox ma foofu big ak fëy Mouhamad Busiri toog daal di wéeru commencé bind moo tax burdu bi ñuy jàng euh, fi ñu tàmbalee première burdu bi du foofu la njëkk bind de déedéet maa ngi laa bëgg wax ban bunt moo njëkk ci buntu burdu bi mooy fi muy wax wa mablaul ilmi fiihi annahu basharun wa mablahul fa mablahul ilmi fiihi annahu basharun Muhammad Busiri daal di ñëw daal di jël bind fa mablahul ilmi fiihi annahu basharun mu jékki-jékki rek mel ni ku ku ku ku càng inspiration bi jeex mu jël feuille bi boxam ko sànni pour defaat beneen phrase bu gën a baax mu bindaat fa mablaul ilmi fihi annahu basharun rek mu càng mu jëlaat feuille bi boxoñaat tegaat jëlaat beneen feuille mu mel ni comme si la mu bindoon inspiration boobu muy ñëwaat ñetteelu yoon ba nag mu ni sëriñam bi ah mu ni taalibeem bi moom Mouhamed Boussiri yi man daal xam naa sama coono gi moo ma jàpp ba sama inspiration bi dem léegi xaaral ma wéeru tëdd nelaw tuuti su ma yeewoo fajar incha allah xëy na dinaa dinaa dinaa noppalu dinaa jàppaat forme su ko defee ma mën a continuer tagg bii ma bëgg tàmbalee di ko tagg sama turandoo waaye mbokk yi xoolal foofu yonent bi salaa ak yàlla ñoom rek ñoo jar a jox sa bopp koo xamante ni Moustapha la yonent bi salaa salaam yow ba ngay mën yaa ngi nekk ca la la neex tey nga tële nga ni naa dem tagg ki jara tagg moo tax alaaji Abdou Lahat muy wax naan yamunu bi laa mën nin moom yonent yàlla Muhammad salaa salaam keroog feeñ na waaye tamit aaya ba yàlla waxoon yonent bi salaa salaam dëggal na ko xul yaa ibaadiya allazina asrafu ala anfusihim laa taxnatu min rahmatillah inna allah yaxfiru zunuba jamia xoolal yërmande yàlla nu mu yaatoo yàlla dafa bëgg kuy tuub yàlla dafa bëgg kuy kuy kuy rëccu la nga xamante ni weesu na ci lu ñaaw loo xamante ni bëggoo dajeeg sa borom mu la koy wanaat waaye xoolal ca guddi ga nag ba mu tëddee am na yéene ca biir guddi nelaw ga nag mu daal di gént moom Mouhamad Busiri yu ba mu géntee ci biir gént gi mu gis benn jëmm ñëw ak manteau chapeau ñëw ba ci biir néegam daal ko pëkk-pëkk mu yewwu jàkkaarloog jëmm ja jàpp na ne mu nga ca gént nag jëmm ji xool ko ni ko xam nga ma ndeysaan Mamad Busiri ni ko anta xayrul xalqillaahi yow yaay yonti yàlla Muhammad salaa salaam ki gën ci ñu yàlla bind Mamad Busiri nee na yonent bi salaa salaam ku ko ni jàkk kenn du la wax ni kii mooy yonent bi il est différent des autres Mamad yi nee na yonti yàlla Muhammad ku mu gane si ba nga xool ko mu xool la jarul sax dem te ñëw da ngay xam ni kii mooy waaja daje gaa ko waaja yàlla nañ ko yàlla boole defal went bi salaa ni ko comme xam nga ma man la sa turandoo man la sa maam bi nga commencé fa mablawul ilmi fiihi annahu basharun man dama am benn malaaka boo xamante ni yàlla daf ma ko affecté képp kuy julli ci man day ñëw ni ma pëkk-pëkk yaa rasulallah diw day ma ngay julli ci yow def na temps salaatul alan bi ci yow yonent bi salaa salaam nee na ma récupéré ala salaatu nabi def ci sama cachet signé ñu ko lawxil mahfuus ba daje ëllëg yowmal xiyaam mu ni ko nag bi nga bi nga ubbee sa mablawul ak façon bi nga ko ubbee ak fasaxa ak yitte gi ci def ba ma ko malaaka bi waxee laa ko ni kii faw mu fekk ji ko moo waral ma ñëw tey Muhammad da ngaa feebar ndeysaan mu yëkkati manteau bi salaa salaam manteau mu yoroon mu sàng ko Muhammad baatu burdu mbokk yi foofu la jugee burdu li muy firi mooy manto kon burdu bi nekkate li muy tudd burdu yëpp manto bi yonent bi salaa jëloon sàng ko Mouhamad Busri foofu la tur bi jóge loolu mooy manto loolu mooy burdu léegi nag bi mu ko sangee manto bi yonent bi salaa salaam nag daal di ko ni jëlal xalima mu jël xalima bi mu ne ko yeggalil moo tax burdu bi li ci topp lépp yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko dikti dicté busuri ay kaddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la mu ne ko bindaatal mu bind fa la bulawul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khair khairul khalqi lahi kullihim ni commencé di dem di dem tabarakallah ba burdu bi jeex Mouhamad Busiri nag tàggatoog turandoom yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wasallam mu jékki-jékki rek ci biir nelaw la nekkon ni pëkk tit ba mu tiitee mu yeewu jóg gis ni la mu fanaanoo woon yeewoowul noonu lan la yeewoo manto bi ko yonent bi sallallahu alayhi joxoon ci gént gi manto boobu la yeewoo Mamadou Bassirou nee na non seulement dama yeewoo ak bi ma xam ni kon man géntuma woon ci dëgg laa nekkoon jaaran laa gis sama turandoo waaye nee na ni ma yeewoo maa ngi maa ngi sentir ay fraîcheur ñuy juge ci manteau bi di dugg sama yaram nee na ma ubbi sama sama manteau bi gis sama taab yi ma amoon sama picc yi ndekete yëpp disparaître na ci guddi gi yépp disparaître na nee na feebar AVC ba ma amoon keroog laa gën a nekk en forme mel ni kuy door a am 30 ans Mohamed Bousiri nee na li ma ci gën a yéem man ci lii ma yonent bi salaa salaam jox sama turandoo mooy ba ma jullee fajar ba pare am ku fëgg sama biir néeg sama bëkk néeg bu ubbil ko ndekete sama sëriñ boobu doon ma wax naan del tagg yonent bi salaa salaam sa turandoo kookoo jara tagg kooku moo ma gane si ba mu ko ganesee mu ubbi muy moom Mouhamad Busriyu di ko nuyu mais sëriñ ba talu ko nuyu sax da ko ni rek ana sa turandoo yonent bi salaa salaam jox biig Mouhamad Busriyu ni ko mais bul ma jaaxal abase ni ko dama ni sa turandoo seet si na la biig waaw wala déet mu ni ma ah kay mu ma waaw ba mu jugee ci yow ci man la ñëw sallallahu alayhi wa mu ni ko Mouhamed Boussiri toogal mu ni ko man mii de sa sëriñ dama jaayante yonent bi ba mu may ma dara mooy at bu jot dinaa ko gis ñaari yoon dina ma gën si ñaari yoon biig nag dafa tombeek jour bi nga xamante ni dafay tombe ci at bi jour bi ma war a seetsee ba mu ma seetsee nag ma ne ko yaa rasulallah comme maa ngi jëm mag te wax dëgg yàlla li ma desee bëreetul te nee na amatul beneen préoccupation lu dul di ma tagg man mu ñaan ma ma ñaan rasulallah ni ko limu legis lay gis di dama bëggoon nga may ma privilège defal ma cadeau boo xamante ni léegi saay su ma la nammee gis dama koy jàng wala ma def ko rek nga sama kanam yonent bi salaa salaam mu ni ko rasulullah sa turandoo ni ma fii ma jóge maa ngi jóge sa kër taalibe bu ñuy wax Mouhamad Busuru jox naa ko loo xam ni saay boo ko jàngee balaa ngaa pare ma ne cëpp sa kanam loolu ma fi indi Muhammad Busuru keroog ndeysaan bëkk néeg bee ngi toog mi ngi kontaan mi ngi dégg loolu moo tax ñoom ñett ñëpp ñoo ko mokkalandoo ci saasi ndax ay kaddu yonent bi alayhi wasallam la kon mbokk yi koku moy Muhammad busri fofu la jaare ak buur ya la jaare ak nit motax nit rek kay wor waye yalla du wor yonent bi alayhi wasallam du wor kon lang fay jange moy boy jox sa bop wala boy weru wéerul ci ku wéeru ci yalla ku wéeruwul ci yalla wala wéeruwoo ku ci ku wéeruwul ku yalla. di nga mës daanu ta bo daanu aduna yeb bayila kon ki jara japp ki jara kagn ki jara tag ki jara jox sa lepp mooy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon mbok yu ngok lolou moy burdu fofu la burdu joge muy firi manto ba mu nek pacte bo xamanteni ni na ci yent bi alaihi wasallam jëm ci muhammad busri yu fajal ko AVCM moo gis nga bi mu commencé di tagat bur ya ko baye won commencé di ko courtiser wat len yéen du ngeen mbok dotu mu a ñew ci yéen baye len mak sama waji sallallahu alaihi wasallam nak li ci gën a yéeme nag mooy suñu maam Omar Fuutiyu Taal radiyallaahu taala anhu ndeysaan eh, dafa ñëwoon ci benn jotaay gis benn waay bànd loxo yi bànd loxo yi ba loxo bi xaw a fees mu ñëw laajte ñu ne waaw lii ku moom lu ko dal mbaa jàmm ñu ni moom daal amoon na ay jamono dafa géntoon yonent bi salaa salaam ba mu ko géntee yonent bi jox ko loxo ba mu ko joxee loxo ba léegi nag ba mu yeewoo nee na doonte gént la sax te ku gént yonent bi moom gis nga yonent bi nee na loxo boobu dootu ko jox mbindeef ci kaw suuf ndeysaan maam Omar Foutiyu Taal eh, Cheikh Omar Foutiyu daal di muñ daal di ne woo leen ma waa ji ñu woo ko ñu dugg ñoom ñaar ci benn néeg mais dañ dugg ci benn néeg te fa diir lu war a mat ay 15 minutes 10 minutes ñu génn gis waa ji la bandaasatul loxom ñu ne ko mais comment sëñ bi yow yow li nga ñu bañal ñu ñëpp say kilifa ñëpp bañal la ko yow nga nangu ko sëriñ bi waa ji xool leen ñoom ñëpp ñu leen bañaluma ko sëriñ bi de kama ko defaloon kookoo ma seet siwaat waaye nag sëriñ bee ma wan loo xamante ni ëpp na sama njor ñu ni ko lu xew ca la la xew ca biir nee na ñu duggee am Umar fudu yu taal dafa jël ay bëyit ndekete ci bëyitu burdu bi la am lu mu jàng rek yonent sallallahu ne jameet seen kanam mu ni waa ji kii nga gisoon mu ni ko waajaa ngi mu ngi nii kii moomu nuyu woon mu ni ko tey waxuma la nuyu mais na la akolaat ngeen akolaatante ci la waa ji dindee morse ya ko akolaat ak moom Mouhamad euh, Cheikh umar Fouti yi ni ko ñun kii saay buñ ko bëggee gis dañ koy gis sallallahu alayhi wa sallam tolluwaay la keroog bokk na ca la mu jàng ay bëyit ci biir burdu bi yàggul sax yonent bi ni njareet seen kanam léegi nag njariñ boobu nga xamante ni mi ngi ci biir bur burdu bi sirru boobu nga xamante ni mi ngi ci biir burdu bi moom la Cheikh Sidil Hadji Malick nag dem jël indi ko pour lan umma bi pour lan nit ñi rawatina waa Sénégal nga ni yonent bi sallallahu alayhi sallam rek moo leen ñor ñu barkeeloo ko ci moom nga xamante ni euh, nee nañu képp ku ko jàng ni nga ko war a jànge fang koy jànge set yow mi koy jànge nga set tu muy dëgg ci yow balaa burdu du jeex nga ak waja sallallahu alaihi wasallam. yalla yàlla ko yalla boole defal kon mbokk yi burdu de ngoog na ko ñëpp def euh, fi may tëjee rek moy point point ci point burdu bi moy ben question bo xamanteni ndaysan fa am ben way bu ñëw laaj ko Sidi haji malik bobu mi ngi tok Cheikh al Khalifa ngi tok radiyallahu taala anhum mu ko gi ñun de dañu dégg ni euh, burdu ku ko mokkal rek wàlliyu nga Maodo daal di sëgg ba mu yàgg mu sigi mu ni leen ah leen daal moom mën naa ko assuré moom man Seydil Hadji malik musuma dajeeg wëlliyu te mokkalul burdu te burdu nekkul ci dënnam dañ ko laaj ni ko dégg na ni ku mokkal burdu rekk nekk nga wëlliyu mu ni moom musul xam wëlliyu bu mokkalul burdu kon nag mokkalal waaw boobu na ñu ngi doon werante ci yént bi salaa salaam dafa ay privilège pour mu nekk mu nekk ràmm ëllëg ñu naan ku mokkal turu yàlla yi 99 yi yaram boobu yàlla du ko lakk safara ku mokkal alxuraan tey siir bi turu yàlla yi ainsi de suite question boobu nag daal di dugg kon mbokk yi burdu bi mbind bu neex la mbind bu yomb la ku ko mënul mokkal tamit da koy jàng ñaan la tawassul la ay salaatu ala nabi la te nag jamono ji ñu nekk yonent bi salaa salaam daan na wax de leen bëri li ngeen def salaatu ala nabi kon fa tabaarakallaahu yàlla ñu ko yonent bi salaa salaam nangul yàlla na ko yàlla nangu teg ko ci ay loxoom lépp lu luñ fi mawlaaya salli wa sall yàlla nañ ko bokk ak jullitu àdduna bi yëpp sans exception rawatina nag sunu senegaal bii nga xamante ni fa tabaarakallaahu euh, réewu jàmm la réewu teraanga la réewu lislaam la réew la boo xamante ni mag ñi ko ŋànk bëgguñu woon lu dul lislaam nekk benn ah yàlla nañ ci yàlla gën a xiir te xam ni kat yonent bi salaa salaam ñoo ko bokk ñëpp a ko bokk kon nag lépp lu ñu mën ngir tënku ci euh, euh, ay jàngaleem ngir tënku ci ay jikkoom fa tabaarakallaahu nan ko def te xam ni kat moom la yàlla wax ni walakum fii rasulillahi uswatal xasana kon nag référence baa ngoog waajaa ngoog ki jara kaja ngoog ki jara tagga ngoog ki jara toog di def ay salaatu ala nabi mu ngoog te tey da ngay xool magu senegal yëpp koo ci jël yonent bi salaa salaam la jël teg ko fu mu tegul kenn waaw boo jëlee Cheikhul Xadim mu ni anal xadimu inni xaadimu rasul mu ni man maay Cheikhul Xadim waaye na ngeen xam ni man maa jël sama bopp may ko yonent yàlla Muhammad salaa salaam nekk mbindaanam waxin la nag mooy dama tënku ci keppaaru yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga jël ku mel ni Sidi Hadji malik mbokkam ba ah, ah, cousin wam ba daal di répéter la même chose ci yonent bi sallallahu alayhi kon nag man lii góor gi naan euh, Sénégal mel na noo xamante ni tey ku ci ku ci góor góorgóorlu tuuti rek waaw di nga bokk ci kër keppaar googu di nga bokk ci kuréel googu kon ñaan lañ ko yàlla boole defal euh, yàlla nañ yàlla nangul yàlla nañ ko fekk ay déwéni déwén déwén incha allah lépp luñ fi ñaan incha allah yàlla ko yàlla nangu léegi nag corrélation bi am ci diggante Bour ak Gamou nag moom moom c'est très simple li ma koy faral di expliquer mooy. Euh, euh, da ngay dem restaurant léeg-léeg boo demee restaurant ñin la ah jëlal entrée entrée bi lan la nga ni lii ak lii nga choisir sa entrée boo lekkee ba sa biir nag ubbeeku léegi nag nga war a jël place de résistance kon burdu nañ jàpp ni entrée la c'est pour permettre que jour gàmm nag nga nekk en forme mën a jël place de résistance bi mën a jouer sa match officiel su ko defee nag yonent sa salaa salaam mën la mi ci championnat bi nga xamante ni moom lay ubbi chaque année yàlla ñu ci yàlla boole bokkal incha allah.